sama xaritu papa laay génnal depuis deux ans story time man maay sama taawu papa maa ngi am vingt bi ma amee dix ba léegi man ak xaritam ñooy génn sam papa benn xarit bi la mësa am ci àddunam daanaka sax dafa dem ba mel mag bu ñu bokkal ndey ak baay moom moomu bi doomam bu bëggee takk jabar sam papa moo dem ñaani jël

moom bëgg na ma takk bi ñu nekkee ba léegi moom dafa yàgg wax sëy lañ war a def balaa musiba di ñu ci fekk waaye wax dëgg yàlla muy man muy moom kenn amu ci fitu wax ko sam pàpp te bu dul dara sax moom jabaram tataalaa kay woowe suñu ñaari famille dañoo sude mel ni ñu bokk même ay domam nañu ñëw suñu kër vacances wayé yalla da dogal bés ñu gisante biñu ñu fo foo xamante nekkul ci kër yi ñu tok waxtaan si lañu comprendre que dañoo am ay points en commun si lañ commencé fréquentante en dehors de la maison instant bi nag bëgg na mu takk ma moom bëgg na ma tak waaye xamuñu nan lañ koy waxee sam papa sam papa fonk na njabootam fonk boo xamante ne trahison xam naa la koy jëlee. waaw man damaa amoon problème moom. waaw problème mu góor laa amoon. góor. waaw waaw. ndax daa am kenn ku ma doon liggéeyal. waaw mi ngi dëkk fii rek Ouest mhm. léegi man nag moom dañoo waxaale woon trente mille. trente mille yow kooku loo ko doon liggéeyal ba waxaalee waxaale moom trente mille. liggéeyu kër ménage. ah waaw waaw mujj gi mooy fay fukki jooni ak bureau loolu bàyyi na di. wa té continuer. wa légui man problème bobu la lay wax parce que bis mu ne dafa ma jox passe jooni ah yéen. man de man na matuma dara. teeyul parce que dama yaakaaroon ne ku baax la parce que baax rek lama ma wanoon. Hmm, waaw waaw léegi nag ñuy dem di dem di dem ba benn bis. Mm-hmm. mu dal ñu may wo waaw daal di ne ma naa ko defaral salle de bain. wa makoy defar ni ma sëggee nonu di defar uh-huh. man daal defuma def lul yag rek mm. def defuma lul xaar bamuy yag def bamuy yag rek di balé bamuy yag di pomp mm. rek di gis koy bi dugg ak a génn kese kese <laughs> léegi yow est-ce que du yaa bëgg ci ah man kay na ba bëgguma ko won waye mm. ba nga xam nga ne yow mom koyé ki miram ya mako gëna xam ah man kay gën mëna ko xam mu tojal mu léegi waxal rek legi nak bu mu démé non wa léegi man tamit ma bayiko rek mu daanu ma daanu. Mm. léegi mu naan ne ma bu ko wax kenn. waaw ma ne ko dinaa ko waxe mu ne ma soo ko waxee kon dootuma la. neexutoon ci ah, waaye dama ko doon napp dama ko doon napp. Ah, ma ne ko dinaa ko waxee. Mm. mu ne ma soo ko waxee kon dootuma la kattati. Ah. ma ne ko kon léegi dootuma ko waxe léegi ñuy dem léegi nag ñuy dem di dem moom daal bu yendoo ci kër ga. Mm. ngeen nekkal ko de su suma xeyse bala ma def dara dama hmm. koy kat <laughs> waaw suma ma ba pare dama koy kat te <laughs> seexu len dal du sa jëkkër du sa dara ah waaye yow kat neex ah, kat amul jëkkër amul far hmm, yow na soxna ci kon amo problème léegi neex na la ni yow amo problème waaw nag mom man gis bu may bàyyi gim la bàyyee la metti waaw ah. bàyyi gim ma bàyyi la lay wax ci gim ma la lay wax ci ndax man eh, mom mom bu ma kat di ma continuer di ma kat hmm. bëgg na man kay li ma ci metti mooy moom daa jékki-jékki tuxu xamatuma fu mu ne ci dëkk bi ah, wër naa ko wër a wër a wër a wër gisuma ko ndax xam naa ne kooyam boobu dootuma ko am man nag naqar woowu ak tiis woowu moom laa la indil fii ci sa rajo bii di la ko bëgg mu jàppale ma ci te yàlla rek tax waaw ndax fi mu toll nii maa ngi bat bati fi mu may gis nii maa ngi rag ragi kooyam boobu moom xam naa ni daal moom kooy la daal kooy la daal kooy la li ma la ci mën a waxal mooy kooyam boobu kooy la yow sax boo ko ñamoon xam. ah déet nag déet man de ma ko ñam mukk na soxna na nag. moy sama jëkkëru yaay actuellement ba pare dama ëmbal teg ci story time coucou les amis j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax man nag sama yaay ak sama papa dañoo teel a tàggoo bi ñu tàggoowee sama yaay danaan voyager lu bëri ma dem sama kër ma mën naa ni foofu laa yaroo mais bi may toll ci sama 18 ans 19 ans dama xamante woon ak benn sugar dali benn paa boo xam ne moom a gën a âgé ñun ñaar ñuy génn mu bëgg ma nag lool di ma defal lu ne fu mu ma woo ma wuyu ko fa léegi nag ñu dem ba benn instant paa bi proposé ma mariage ma xam ne kii aw ma fitu yóbbul ko sama papa sama sama papa wala sama yaay tax moo leen mag ma daal ni ko man kat bëgguma sëy fii ko xale la damay jàng moom mu daal di arrêté relation bi quelque temps après mu envoyé ma message ni ma man damay takk jabar ma daal koy ñaanal même si que metti na ma parce que moom laa njëkk a xam si góor te moom dama ko bëgg après quelque temps aussi sama yaay si côté aussi daan may woo ni ma man kat damaa am ku may bëgganteel te damay marié wu ak moom bi may woo sax di ma wax loolu bu nekkul woon Sénégal ma daal kontaan trop parce que bi sama papa ak sama yaay tàggalikoo ba léegi sama yaay defaraatul woon ak viom léegi fii que sama yaay bi ñu koy maye nekk fi mi ngi woon extérieur donc mariage bi mën naa ni takk jàkk rek lañ def vu que mosoon na sëy ba bi sama yaay di organiser invité n'a sama papa jiitle bobu ci pour ñun ñu pour mën ñuko présenter ñu mën ko xam bi ma sama ma sa papa présenté mako bima sama ex bobu sama suga dadi bi mo sama eh, yëgu ma ko ndax su ma ko teeloon a yëg sëy bi du mës a am ndax tey jii mënoo xam doom ba pare tourné bëgg xam yaay mais c'était trop ndax paa bi takk na sama yaay ba pare. léegi nag man des fois dama naan ñëw sama kër yaay di ñëw di ko seeti et tout ça su ma ko wala des fois bu sama yaay di dem fenn ñëw ni ma naa ñëw ci kër gi di gérer paa bi affaire yooyu di ko jàppale ndax xamul sama relation ak paa bi ba léegi. léegi bi ma ñëwaatee si kër gi di jàppale sama yaay su fi nekkul paa bi nag commencé lim doon def ak bu njëkk di ko defaat affaire saay-saay yi mu doon def affaire yooyu man tamit vu que dama ko bëgg mënuma ko résister ma fekk si ko ci zoom des fois hôtel laay yëndoog moom wala ci auberge ba bët set mais problème bi mooy actuellement dama ëmb te paa bi moo ma ëmbal te paa bi moo nekk sama jëkkëru yaay mais xaw ma nan laay waxee sama yaay que ni jëkkëram ji sama ex copain la ba paré dama am relation ak mom ba tourné ëmb ci bu doon yéen no leen di def ëttu jigen ni en tout cas anu danse dans na dama ëmbal sama tante story time man ak sama benen cousine dañ ñoo may sama benn tante boo xamantane ne amul doom donc fii laa mës a nekk dama kaa considéré comme yaay bi ma jox benn bés dama jóge liggéey

mu ñëw ba sama kanam tey sama kanam ne ma lu tax may daw xanaa duma góor ma ne ko si si waaye yow sama yaay nga si noonu mu ne ma góor nga may jigéen des fois dangay am ay envie man tamit des fois damay am ay envie bu la neexee xoolal ni muy waxee noonu mu commencé di ma caresser et tout par la suite seytaane ëpp ñu doole li war a xew xew suñu diggante depuis jour boobu man ak moom dañuy tëdd

xaw ma nan laa war a def est-ce que dama kaa war a wax sama yaay balaa mu koy yëgee neneen te sax gëw ma ne mu yëg ko waaye jima me sens coupable may wut ay